at yi ñu nekk fi dafa yàgg torop ndax man filafek samai, fekk sama yaay bobu xalé la ba doon jank ba sey ba samay doom ñu ngi jur kon xam nga ne yàgg na ñu tok ben bés ci la nar bi di ñu wo presque mhm. ñetti ñe jurum ñenti yon nga ni parce que def ma wo gendarmerie bu Yara bi ma jógee Yara mu woo ma bi nekk euh, côté aéroport mu mujjee bi nekk côté Cambérène Cambérène ñetti yoon la ma foofu mais saa yi ma eggee ñi fa nekk ñoom laay waxal mais du ma wax ak naar bi parce que gisuma ko man xawma ko naar bi xamuma ñi fa nekk lan lañ la wax comme euh, gendarmerie dañ may ne moom moo moom place bi am na titre foncé loolu lañ may jot a tegal man tamit ñu doon wax mais bu mujj bi si leen ma jox kayit pour ma jóg au mois léegi su ma jógee tey jii si un mois fan laay def mbaam mbaam nekkul xar boo xam ne danga koy jël nga yóbbu ko sa kër nekkul ginaar nekkul xar euh, bëy mbaam la te ñun fi ñu nekk nii jegew ñu kër kenn dañoo bëgg ñu bayé ñu place bi défar ñu ko ñu am place comme darali ni ñu am ndax man fi Macky Sall wote réunion man damay téw dem na njum dem na Fouta dem sigen sor amul fuma dem fumu wote réunion damay téw té fuñu tégg euh, ak xari ak dañuy tégg mbam fu mu taxaw wax bo egsee ci mbam day wax kon nak man dama xamul lan la wala ñun dañu bokku ci dëkk bi. bu xeyé nak benn jour bo xey nañu amna euh borom wa bu dé amna borom borom amay kéet ñu parce que tamit nit ak alalam mais e, lo gis si waxtan la nguur gi daf ñu wara accompagner parce que tamit e, fi lu fi nek li ngay filmer ni dafa ndaw xeyna nit ñi dañu yëgul li ni mel quoi ndax fi lu fi euh kon bo xolé man. man bu ma fi nekkee man sama sama samay njaboot ñu ngi fi kon du man dong sama jabar samay doom kon boo li jëlee lim boobu individuellement nga jël ñu fi nekk ñëpp kon fii c'est des milliers de personnes yoo xam ne ñoo fi nekk ndax man la may am fii si laay fayal samay doom jàng la may am fii si laay yoree sama kër kon bu ñu xëy benn jour nit ñëw na moo ko moom bon bu dee moo ko moom si moomin bu jaar yoon ba ñu ñu loo gis dañ koy waxtaan waaye bu ko mo ko moomee mu indi ay kayit indi ay yi nga xamante ne moo ko moom waaw mais bu ko moomee it nguur gi waruñu seetaan parce que euh, lii nii nekkatu li nga xamante ne lu ndaw la lii daral national la sànq Marcel wax na lu am solo bu nee daral national dama ciy ànd bu ne international dama ciy ànd ndax yàpp day jóge fii génn dem bitim réew te fii la fii lañ ko produire fii lañ ko liggéeyee fii lañ ko defaree fii la mu dem seeraas ñu abattre ko kërëng kërëng ba mu génn ba dem kon loolu internationaliser nañu produit bi. xaw ma fu may yóbbu mbaam yi soo ma nee fii laa lay teg boobu amul benn problème mais mënumaa dem te ma teg sama xoolal lii yëpp kenn ku nekk yor nga sa mbaam lu sa doom lekk fii nga ko jëlee sa doom bu jàngee fii nga ko jëlee nga xay tey tey tey di nga ne ma jógal nga dàq ma comme xaj mel ni man nekkuma si si dëkk bi juddoo ma fii de waaye fii laa yeroo. fii moo ñu gënal bu fekkee ne état dee waaj am na kayit yu leer nguur gi mën a wala ministre de ñu jëndal ñu ko fii moo ñu gënal mais nakk ku bañ sañ a nangu. bu fekkante ni euh, ñoom nee nañ waajum nee na jaayut lii lañ leen mën a jàppale lii lañ leen mën a may dañuy jël.